añee ndeysaan Babacar aba combat spécial waaye Kéré moo dugg léegi di tëgg ndeysaan nee na gàkku la nga xam ne moom mooy Pokola balde ndeysaan Babacar arbitre baa ngi wax ak ñaari xale yi ndeysaan aba combat spécial Petit ak Jackson de ndeysaan mbokk yi arbitre bi la combat bi Petit Lo ñu jàkkaarloo ndeysaan ki nga xam ne moom Jackson moo ñu mën ginnaaw ña ngay doxale dara ñaari xale yi ndeysaan Jackson moo sut waaye Petit Lo moo gën a ñaari xale yaa ngay leetoo Petit Lo dóor na ndeysaan Petit Lo dóor na Petit Lo ak Jackson 2 ndeysaan Petit Lo di doom ci Modou Lo Petit Lo ndeysaan na ko ndeysaan ña ngay xeex Petit Lo jël na ko Petit Lo jël na ko Petit Lo jël Petit Lo ndeysaan waaye Petit Lo ndeysaan xale parcelle la ndeysaan moom Petit Lo Petit Lo dox na ci gàddam xeex ak moom génn ko ndeysaan Jackson am na benn avertissement Jackson am na benn avertissement Jackson am na ñaari avertissement léegi ndeysaan mbokk yi arbitre bi la wan na Jackson ak Petit Lo ña ngay doxal latéral Jackson Petit Lo ña ngay doxal latéral Jackson ak Pajuloo Pajuloo dugg ci garde bi léegi Jackson ak Pajuloo Jackson ak Pajuloo jël na ko jël na ko da koy daan laa ilaaha illallah Pajuloo daan na nañ ko bàyyi xel xale la ndaanaan la Babacar waxoon na ma ko Pajuloo ndaanaan la ndeysaan xale parcelle la xale bu nekk ci yoon la nañ ko bàyyi xel moom Pajuloo bu jëloo kenn di moom lu muy wax mu ne roi des arènes lu muy wax yee eh, moom bu jëloo lu muy wax waa Parcelles nee na stade bi ñoo ko moom nee na fii ñoo ko moom nee na Modou Lo mooy roi des arènes baayam moo ko wax ne damay ndira yéen waa Pikine Petit eh, Lo waay waaye Petit Lo waay nee na Modou Lo baayam mooy roi des waaye loolu la 5 lay leer incha allah digganteem ak Ama Baldé